mooy monsieur Radé Almamoun nga xam ne mooy directeur général Expresso amatu fi place am amatu fi place am te moom moo ko wane li mu ko wane mooy dafa njëkk taxaw dañoo am réunion si kanamu directeur général si kanamu inspecteur du travail mu ne pexe yi mu war xamoon yëpp def na ko pour Expresso jóg waaye dafa tëlee mënul léegi lenn moo ko dese comme pexe mooy mu dàq personnel bi kon loolu mooy wane ni moom dafa tële mënatul jiite entreprise bi parce que dañ ko teg pour mu soxale bi. pour mu développer entreprise bi waaye teguñu ko fi pour muy dàq personnel kon loolu war na tax moom amatu fi place am beneen bi mooy entreprise droit sénégalais ak suñu droit travailleur daf ñu daf leen daf ko may chaque weer muy jàkkaarloo ak représentant télé travailleurs yi pour waxtaan ak ñoom si luy suqali si luy euh, nu muy teewee kër gi moom nag si boppam moom moo ne dootul waxti dootul waxati ak benn travailleur moom moo jël décision boppam ne dootul waxti ak benn travailleur ñun nag employé yi teg pour ñuy wax ak moom moom mu refusé ni dootul waxati benn travailleur kon amatu fi place am na fi jóge bu fekkee bëggatul wax ak travailleurs yi mooy na fi jógee amatu fi place am donc loolu mooy ñaari raison yi nga xam ni monsieur Radi Al Mamoun nga xam mooy directeur général actuel Expresso amatu fi place am benn bi nag mooy moom dafa déclaré nii entreprise bi dafa am ay pertes yu bëri yu toll yu ëpp vingt milliards si nga xam si ñetti at yi ñu jóge ñu koy laaj ba te loolu bi mu ko waxee joxewul benn firnde joxewul joxewul information joxewul preuve joxewul justificatif pendant ce temps suñu suñu concurrent yi nga xam ne ñoo nekk si secteur télécom ñoom ñëpp chaque année bu ñu def seen bilan digal ko si internet bi nga xam ne ñëpp dañ koy gis dañoo déclaré ni ñoom dañuy def chaque année ay centaine de milliards de bénéfices kon naka lañ mën a comprendre ni ñeneen ñu nekk si si même liggéey que ñun ñuy ñuy def chaque année ay centaine de milliards de bénéfices ñun waa Expresso suñu directeur général ne ñun dañuy def ay pertes de des des vingtaines de milliards loolu du lu ñu mën a gëm du ñu mën a nangu d'autant plus que joxewuñu benn firnde joxewuñu benn preuve ñu benn justificatif nanguwul partager les résultats et les états financiers avec le personnel te suñu concurrent yëpp boo demee si internet bi di nga gis foofu seen i résultats ak seen i euh, bilan bilan euh, financier léegi nag comme moom nee na de suñu xaalis dafa dafa nax saay te xamul fan la nax ñu nag dañ koy laaj ay questions yoo xam ni pour gëstu suñu xaalis fu mu dugg mooy trimestre bii ñu jógee mooy diggante avril ak juin bii passé bu 2022 moom si rapport ba mu joxee dafa ne fay nañ bi ñuy jënd licence 4G bu bu bu bu Expresso si état du Sénégal fay nañu 5 milliards 577 millions fay nañ ko état bi. bi ñu xoolee ñun dem gëstu ji gis nañ ne trésor public nga xam ne booy booy xaalis bi foofu lay dugg 3 milliards moo jógee si Expresso dugg foofu kon ñu ngi koy laaj moom suñu 2 milliards 577 million fan la ko dugal fan la dugg parce que duggul si keesu état bi te ñu ngi directeur ARTP bi nga xam ni moom mooy saytu licence bi mu xool licence bi nga xam ni Expresso fay na ko ñaata la si ñaata la si dugal ñu ngi interpellé tamit waa trésor public bi nga xam ne ñoom ñooy encaissé xaalisu état bi ne te Expresso ne fay na leen cinq cent cinq milliards cinq cent soixante dix sept millions alors que trois milliards moo dugg seen caisse ñu ngi leen di interpellé ñu dugg ñu génn ñu génn ñu wax ñu ñu ñu ñu dëggal wala ñu weddi li nga xam ne loolu la Expresso wax parce que deux milliards cinq cent soixante dix du neen te xaalisu Sénégal la xaalisu Expresso la xaalisu employé yi la bu mujj bi beneen bi si mooy Expresso dafa amoon benn contentieux ak la douane sénégalaise am benn agent boo xam ne moom expert la en douane directeur bi général bi woo ko ne dama bëgg nga xelal ma si dossier bi bi mu caytoo dossier bi mu ne ko dossier bii mën nañ ko défendre te duñ si fay dërëm parce que amuñu dara luñ siy nëbb amuñu dara luñ siy tooñ loo xam ne ñoo ñoo ko tooñ waaye directeur général da ko fa bàyyi dem. si cabinet bi nga xam ni tey cabinet boobu moo koy xelal pour mu dàq employé yi mu lëkkaloo ak ñoom fay plus de 500 million si dossier boo xam ni ñu si woon fay dara donc lu tax moom mu préféré dem fay jël xaalis boobu alors que waxoon nañ ko ni dossier bi kenn du si fay dërëm c'est un dossier défendable bi si mu mujjee question bi ñu koy posé mooy moom directeur général bi statut am daf ko may mu am buy voyager muy jël cla muy jël billet business class nga xam ne moo gën a confortable économique classe moom ak njabootam ñu koy laaj lu tax mu tàmm loolu parce que bàyyi fi business class dem di jëli économique classe ñu koy laaj loolu lan moo tax mu taamu ko ci bu tontoon nag dinañ revenir aat ci ci question boobu kon yéen ñi nga xam ne yéen a ngi presse bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que directeur général Expresso dafa waxoon dootul wax di ak personnel bi ñun nag ñoo ko wax ni ko danañ wax ak yow par force parce que presse bi la wax ak ñoom di nga jot information yi tey wóolu nañ leen si yaakaar nañu di ngeen ko transmettre information yi tax dina ko gis bu dina tontu bu tontoo danañ tontuwaat bu tontuwul dana leen fi woowaat si ay fan ngeen ñëwaat fi ñu defaat conférence de presse posé waat ko yeneen question fii ba baa mu fiy jógee dañ ko posé ay question yoo xam ne mu tontu seeg mu ñàkk si tontu en tout cas dootu toogati si kër gi moo door bi nga xam ne daal benn nga xam ne moom ñun employé loolu lañ jàpp mooy monsieur Dadi Almamoun waratul nekk directeur général kër gi te ñu ngi wax autorités yi si gën a kaw di président de la république du Sénégal na ko mu bàyyi xel kër gi nga xam ne mooy Expresso parce que ñi nga xam ni multinationales entreprise multinationale la te ñi ko jiite dañoo ñëw fii pour noot doomu sénégalais yi te loolu duñ ko nangu commencé nañ leen toroxal nag commencé nañ leen toroxal te nag ñun ñoo jóg pour ne lool trop c'est trop il faut mu arrêté parce que ñu ko nangu mu fi laalati benn doomu sénégalais loolu daal mooy message bi nga xam ni ñu ngi koy envoyé monsieur le directeur général Radi Al Mamoun di leen sant yéen journalistes yi di leen gërëm di leen wax si ay fan yu ñëw di leen woo di leen waat benn conférence pour poser waat mu laajaat monsieur Radi Al Mamoun suñu xaalis fu mu dugg wasalaam. du euh, syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications je suis membre de, du bureau exécutif aussi de de l'UNSAS waaw li ñu ciy wax mooy tey dañu ñëw euh, fii ànd ak sunu mbokku expresso yi muy ay liggéeykat yi nga xamante ne wax dëgg yàlla boo leen xoolee xam ne du xarañte moo leen manqué du expertise moo leen manqué parce que expresso bi mu implanté Sénégal ba tey yàgg na. donc ñoo xam ne seen ñaxax seen lépp jël nañ ko jox ko entreprise bi ah ñu xëy un bon jour rek ne leen kër gi kat dafa am ay jafe-jafe te jafe-jafe dafa nekk ci wàllub koom-koom wàllub boobu day tax ñoom ñu am sañ-sañ ci travailleurs yi xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen neexul ñu wàññi leen ci kër gi te loolu ñun dañu jàpp ne loolu teguñu ko ci yoon moo tax ñuy wax toujours ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñi nga xam ne ñoo dagganoon baatu askan bi ba ñu jël leen teg leen ci kaw ñu yor euh, li nga xamante ne mooy doxalinu réew mi dañu war a jóg ci yu mel nii yu mel nii nag buñ ko waxee xëy na yemul ci Expresso rek mais dañu jàpp ne multinationales yi bu ñu nekkee fii suñu dëkk dinañ liggéey alal bu dul jeex koom-koom bu dul jeex jël koom-koom bi yóbbu ko seen i dëkk jëriñoo ko mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy liggéey te dëkkee fii en tout cas benn sañ-sañ duñ ko am parce que liggéeykat liggéeykaay dafa am noo xam ne noonu nañ ko tëralee dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite am ñu nekk ci suuf donc chaine la te chaine boobu loo ci dagg rek mbir mi du dox donc ñii ci kaw bu ñu amee ay information yi nga xamante ne dañ ko war a partager dañ ko war a partager ñii ci suuf pour ñu xam parce que euh, dans l'impossible peut-être que nul n'est tenu mais boo xëyee rek benn vingt cinq juillet rek nga jël say këyit defar ba mu baax dugal ne dama am jafe-jafe ci koom-koom te mu am noo xam ne noonu la euh, service bi tëddee mu am ay délégué du am ay représentant du personnel ñi nga xamante ne ñoom dañu jël seen baat jox leen ñu ne leen ñun entre la direction ak yéen yéen a ñuy demal yéen a ñuy waxal yéen ñuy indil mais bu direction bi amu amulee ouverture boobu pour waxtaan ak ñooñu pour jox leen information yu baax yi ñoom ñu xool parce que kër bu amee jafe-jafe dañ koy péncoo kër yëpp dañuy am jafe-jafe mais jafe yooyu dañ koy péncoo pour ñu xool ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi ñu xool nan nañ ciy doxalee pour mbir mi dox te ñii nekk nii si ginnaaw defe naa ne ñu am ñu xarañ nañu ñu xarañ lañu ñu xarañ lañu ñu xam seen liggéey lañu donc dañuy wootewaat une fois de plus sunu gouvernement di wootewaat le président de la république na bàyyi xel ci njaboot gi na bàyyi xel ci doomu sénégalais yi na bàyyi xel ci ñii parce que ñii tey gi boo leen xoolee ci ginnaaw ay père lañu ak ay yaay ak ay baay yoo xam ne lu bari dañu lonk seen ginnaaw fu ñu toll ni nag ci dëkk bu métti bi ci jafe-jafe yu métti yi nga xëy benn fan rek ne ñii nga xam ne ñoom nga nekkal da leen war a da nga war a débarrassé wu ci ñoom ci condition yoo xam ne kenn waxtaanee ko kenn waxu ko en tout cas ñun dañu ne duñ ko nangu ñun ci nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu syndicat nekk ci SNTPT nekk ci au niveau de la poste comité sectoriel poste nekk comité sectoriel Sonatel nekk comité sectoriel DHL dinañu apporter suñuy soutien sans faille aux camarades de Expresso te di wax ne rek seule la lutte pay gars yi xoolal mbir mi euh, pare nañu pour lépp mais jàpp nañ ne benn karawu travailleur du ñu nangu ñu koy salfaañe benn ak ak yàlla doomu euh, euh, travailleur Expresso du ñu nangu kenn di ko salfaañe donc loolu moom il faut que mu leer ci bopp ñi ñi pare nañu nag pour lépp pour loolu donc di woote waat euh, travailleur Expresso yi ñu gën a suudeewu il faut que ngeen gën a suudeewu parce que moment bi c'est des moment important yoo xam ne tey jii am na noo xam ne bu ci taxawaay bi amee rek donc lu ñu bëgg ñun ñëpp duñ ko amandoo nañu gën a booloo nañu gën a doon benn donc ñenn ñi nañ ci fekk si ñun fekk si nañ leen e jàpp nañ ne état bi du ñu seetaan wax dëgg yàlla ay ay ñu leen di sacrifier noonu ci loo xam ne dara leeru ci ci loo xam ne ay ay ay ay lëndëm lëndëm la seen biir euh, xëy rek ne la toogal sa kër loolu moom duñ ko nangu après quinze ans de service après vingt ans de de de service donc loolu kenn mënu koo nangu. waaw fu mu nekk nii xam nga bu ñuy wax ci loolu ñu lay wax noonu danga ma laaj ñaata nit la ñuy licencier. xam nga mooy la ñuy wax jafe-jafe bi nga xamante ne am nañ ko ci diggante ñu nax ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite parce que bu fekkente ne kër gi am na jafe-jafe ñu dem ba benn période ñu xam ne am na jafe-jafe ñu woo ñi nga xam ne ñoom la travailleurs yi yónni ñu toog waxtaan ak ñoom ñu ne leen mbir mi kat jafe-jafe yi lii la lii lañ daan am comme recette tey gii suñu recette fii la toll lii lañ daan fay comme salaire tey gii lii la ñuy am comme luy dugg donc lii ngay liy dugg ak li war a mën a jël en charge les les salaires am na gap boo xam ne am na différence boo xam ne du ko mën a téye comme nu mu ko war a téye mais ñu toog waxtaan mais ba biig ba sànq ba bu ñuy wax ay yow dem nañ inspection du travail ànd ak ñoom ñu jël fa ay engagement engagement yooyu bu ñu ñëwee dañ ko fule au pied dañ ko fule au pied te loolu moo dul yoon mënoo dem ci ay agent assermenté ñu toog wax ak yow am loo xam ne digal nañ la ko ci wàllu àndandoo ñu ñëw ba ci biir ñëw ba direction générale nga banque sa loxo ne doo wax ak travailleur te li ngay def da koy def donc loolu jaay doole la te jaay doole ci suñu biir dëkk defe naa ñun duñ ko nangu kenn waru koo mën a nangu donc loolu mooy lu leer li dañu ñëw ne dañuy wàññi te waxuñu nan nañuy wàññee waxuñu kan nañuy wàññi waxuñu lan moo tax ñuy wàññi ñoom daal am nañu seen sañ-sañu wàññi rek bëgg a wàññi noonu dem ko donc loolu dafay yomb trop wax dëgg yàlla ci jamono ñuy toll nii que nit ñi di leen seetaan ñuy def lu leen neex surtout ñëw fekk ñu suñu dëkk aussi donc c'est que monde bi sax léegi village planétaire la parce que y a des yu nekk un peu partout di investir di kii yooyu mais am na loo xam ne bu tegul ci yoon rek nit ñi dañ koy dénoncer te lii jàpp nañ ne tegul ci yoon te war nañ ko mën a dénoncer voilà man Samba Yombe Mbodj laa tudd maa ngi euh, ci euh, euh, syndicat bu ñuy wax SNTPT syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications donc mu seq ci ñeenti bànqaas seq ci wa Expresso mi ñu ñëw tey àndandoo di dooleel ñoom seq ko waa Poste seq ko wa Sonatel seq ko waa DHL ñu bokk aussi ci benn centrale bu rëy bu ñuy wax UNSAS li nga xamante ne Mademba Sock moo ko jiite donc xëy na bu fi taxawulee tey yaram bi moo xaw a jagadi tuuti mais il est de tout cœur ak nous tout l'UNSAS est derrière euh euh, euh, euh, les travailleurs de Expresso et ensemble vraiment jàpp nañ ne li nga xamante ne moom ñuy xeex yàlla dina ci may ndam. Euh, je vais vous lire en fait le texte liminaire euh, donc mesdames et messieurs les professionnel des médias distingués invités, euh, la délivrance de licence à Sudatel Group, d'origine soudanaise par l'État du Sénégal, à l'effet d'exploiter un réseau de télécommunications au Sénégal, traduit une volonté politique majeure visant à promouvoir la coopération sud-sud dans un secteur en pleine expansion, axé sur le développement technologique. Il s'agit d'une manifestation de solidarité agissante entre pays en développement contribuant au bien-être des populations ainsi qu'à leur autonomie économique et permettant d'accélérer les progrès vers le développement durable. Nonobstant, l'expertise dont il dispose le Sénégal fait référence à ce type de coopération en accordant des avantages exorbitants à ces mécènes, mécènes qui, leur retour, cherchent le beurre et l'argent du beurre. Après 14 ans d'exploitation, Expresso Sénégal bénéficie du renouvellement de sa licence malgré le non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges, surtout le retard constaté sur les investissements prioritaires et la création d'emplois durant plusieurs années d'exploitation. À la surprise générale, la société a entamé depuis le 25 juillet 2022 une procédure de licenciement collectif du personnel pour motif économique, arguant le prétexte d'avoir cumulé des pertes durant les trois exercices 2019, 2020, 2021, période qui a coïncidé avec la crise sanitaire de la covid Le plan d'ajustement préconisé vise à réduire les revenus tra des à travers la compression des effectifs dont la masse salariale ne représente, représente moins de, de 10, 12% des charges totales, qui passe actuellement en 2022 à 9%. Les travailleurs sont dévastés d'entendre les arguments avancés par la direction générale pour justifier les mesures envisagées et qui contrastent avec la réalité des faits. Pour étayer leurs arguments, par des preuves et par souci de transparence, nous leur avons demandé la présentation des états financiers afin de partager avec les délégués du personnel les informations économiques et financières de la société, conformément aux dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social ainsi que la Pacte national de la stabilité sociale. sociale et d'émergence et la déclaration des principes tripartites de, de l'Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 2017. Ils nous ont opposé un niet catégorique, ce qui nous semble obscur, raison pour laquelle nous nous opposons par tous les moyens à cette mascarade. Nous alertons les autorités du pays sur cette situation à ce qu'elle tombe pas dans le piège de ce groupe, à ne pas céder à cette supercherie, il n'y a aucune difficulté financière qui puisse justifier des suppressions d'emplois dans ce contexte avec toutes les faveurs qui leur ont été accordées. En effet, la société ne dispose que de 128 employés, 56 cadres parmi lesquels 18 sont des expatriés dont le comp la composante essentielle est constitué de consultants pour monter des opérations circonspectes. C'est également la course effrénée vers les sociétés de placement mettant à leur disposition des agences qui constituent aujourd'hui un modèle achevé de dumping social. La société en compte 80. À l'heure actuelle, des recrutements ont été qui donne nombre à plus d'un titre le non fondé du motif invoqué. Expresso ne traverse aucune difficulté économique. Elle a relevé actuellement son chiffre d'affaires de 16% par rapport au dernier semestre et la masse salariale a baissé de 10% en 2022. La liste de travailleurs licenciés ne fait que s'allonger pour les motifs fallacieux du genre insuffisance de résultats sans aucune base légale ou objective. Il est temps que cela cesse. L'État doit veiller sur les conditions d'exploitation de cette boîte, dégradante en tout état de cause les travailleurs mobilisés derrière leur centrale syndicale sont déterminés à faire face à cette nébuleuse et n'entendent pas se faire écraser. Ils ont tout donné à cette entreprise qui cherche par des, des moyens détournés à les liquider. Voilà une société multinationale qui ne respecte pas la liberté syndicale et de dialoguer avec ses travailleurs et qui se croient en territoire conquis. Nous exigeons du respect et que les choses se passent dans la transparence à travers la communication du bilan social, ce qui n'a jamais été fait. Les travailleurs unanimes vont entamer une action de protestation à la mesure des agressions et demandent à l'ARTP de procéder à une évaluation du cahier de charges et à la tutelle technique de revoir les clauses du contrat avec l'implication des représentants des travailleurs. Le présidium reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci à votre aimable attention.